pression sociale yi nga xamné ndaw yang koy dund même boudé tok na naa plateau ne xamal len que ne aussi ñun ndaw ñu apprendre à entreprendre cette douleur ça n'a jamais été facile ku leen gëm une yoon bi dina yom rek fenn na len yoonu ndaw bla mu neex rek netti et nous devons résister tay risquer bakkan dara jaru ko si àdduna ku dee mënatuloo say waajur dara et c'est pas le bon moment c'est le moment de rester et de se souder les bras xol ensemble comment faire pour faire avancer ce pays ensemble comment faire pour yëpp lu nga xamné lu yàq suñu suñu suñu avancement là ñu mettre à côté. Hmm. man je pense que le loolu mooy avenir Sénégal ay ñuy wax millions ñuy investir bu faire ko defoon je pense que tey xel ou liggéey avant tout d'abord c'est le hmm. cerveau qui travaille. Hmm. alors euh, tey bu mu fekkee ne gëm naa même bu ma 10 millions de ma réussir Sénégal vous ma investir je vais essuyer.

nga jàppale leen. tey ndaw ñu ñu jël ay 3 millions 4 millions di ko investir si gaal dem ku si der joxoon tey financement nga toog Sénégal liggéey réussir hmm. ci. mais defuñ ko bu ñu ñëwee lu ñu njëkk def mooy xam naa diw xam naa kële sama rak la sama nit la noonu lañ ko utiliser jox leen ko ñu lekk ko tëj ci kenn gisul avantage der na xaalis der bi. kan nga dem mu ngi wax gaa lekk nañ ko. donc Sëñ Fallou en tout cas loolu laa am lu ma leen wax na état du Sénégal xoolaat l' des jeunes. c'est clair comment aider ces jeunes nous am une nouvelle plateforme bu ñu teg la nouvelle alliance pour le changement. Hmm. suñu programme mu gën s'articuler autour de la jeunesse sénégalaise. Hmm. parce que gëm nañu jeunesse bi il faut que nous nous couvrir leen am des emplois garantis am benn protection sociale bi nga xam ne que il sera accompagné par l'État. Hmm. ba tey ndaw ñi. dañuy mën a amati confiance toog ci biir askan bi liggéey toog ci Sénégal liggéey sur ce aussi maa ngi remercier waa commune de Keur Socé Serigne Fallou euh, ñu ngi fay waaj benn tournée euh, en fin de semaine di nuyu Ibrahima Ndiaye Koutier euh, mu nek Koutier nek ben village bu dans la commune de Keur euh village religieux maa ngi nuyu au passage mu nek nga xam ne recevoir n'ako, mu wax ma ay doléances yu métti dans la commune de Kersosé xamaloon naa ko nag fépp fu ma toog wax ak askanu Sénégal ñi nga xam ne autorité yi nga ñu ngi ñu gëstu cette commune de Kersosé parce que xamal na ma commune bu nga xam que 71 villages la benn marché hebdomadaire la am to hmm. tay loolu rek déjà je pense que war nañ mëna a tay tey cet acte de la décentralisation nu muy doxee war cette gestion des collectivités territoriales des communes yi nga xam ne que tey trop exagéré en matière de village hmm. ñu xol nu ñu leen di mëna a xamal na ma bu xessé taw presque ils sont dans des

bu taw kenn mënu fa jaar hmm. c'est impraticable deuxièmement aussi y a un deuxième aspect boo xam ne mu nga jaar Lamarane au passage de nuyuwaat le maire Abdou Aziz le maire de Ndiédiène jaar passé aussi bu tawee kenn du fa jaar te képp ku xam commune de Kër Sousa xam ne que commune bu ñu xam ci Sénégal la commune bu am au Sénégal donc en résumé je remercie Ibrahim Ibrahima Ndiaye qui est un collaborateur au sein de la Nouvelle Alliance pour le Changement hmm. de nuyuwaale aussi toute la famille de la Nouvelle Alliance pour le Changement xamal jeunesse Sénégal que nous vous tendons la main changement bu néré am Sénégal gën na né ci kattan suñu nouvelle alliance sera l'une des noix yu nga xamni ne apporter L'unité, moyenne, ensemble, réunir tous les leaders, ensemble, réunir tous les leaders conscients, nous demandons dans les futures élections ensemble. en tout cas, c'est une fois, dans la monde, je remercie encore une fois pour l'invitation. Du bas, Sénégal et au cas où vous avez c'est toujours pour tirer dans le bon sens. Et merci beaucoup, je vous remercie. Alors, euh, c'est nous qui vous remercie, Abdou. Sylvain, Ramnek, Maurice, sa disponibilité, voilà, chers téléspectateurs, nous vous remercions encore une fois. Si avons avez seul franchement, euh, immigration mandat immigration irrégulière, on s'en puisque li nga xam ne itam fii xew de plus en plus tey jii on nous reparle euh, plus de li nga xam nekk centaine de morts euh, jëm ci li nga xam nekk moo di waaru fa nga xam ne itam ko Fass Boye en tout cas ñu koy daal di ñaawlu bu baax baax baax baax baax tout en espérant que li nga xam nekk les autorités étatiques euh, vont prendre des mesures structurelles jëm allant dans sens peut-être ñu war a mën a li nga xam Modi moo li nga xam nekk ndaw ñi nag franchement c'est pas évident dëkk bu mel ni li nga Sénégal am tout euh, les atouts qu'il faut peut-être nous war à que développement euh, terre arable bain fille espace biche ak que justement ay organisation yi nga xam ne itam créé woon nañ ko dans ce sens ANPEJ FONSIS DER 3FPT mu nekkoon ay yi nga xam ne itam foo ñoo daal di jàppale li nga xam ne mooy ndaw ñi euh, si wàllu xëy ak euh, wàllu li nga xam ne moo di emploi ak employabilité euh, tey jii su ko doon institué def li nga xam ne moo di justement quoi comme le bilan fan la ñu si daal di toll yenn jeunes ak yenn jeunes lañ si daal di war a mën a jàppale en tout cas on s'en fiche par rapport ak situation bi nga xam ne itam moo xew si wàllu ko Fass Boye plus d'une soixantaine de personnes daal si li nga xam ne moo di des franchement ñi ngi ñaan li nga xam que nous di nguur gi mu gën a jublu nga que euh, euh, si euh, politique de la jeunesse car c'est important et que je pense que le gouvernement sous échecé li nga xam que sa politique de la jeunesse euh, dafay dese tout donc jeunesse bi tey moo daal di conseiller li nga xam ne di le Sénégal 30 secondes. Euh, voilà bon dafa am peut être benn euh, intervention parce que dafa am hmm. sama benn frère ma bëggoon nuyuwaale au passage hmm. muy le professeur Sambou n'est que leader du mouvement des jeunes leaders dans la région de Saint-Louis. que pal dafa am bon démb peut être ben accident bu am face mu am ay frères yu si bokk maa ko de quoi bu baax wax ñom aussi nous avons réussi leur doléance inshallah rabbi euh, buñ joggé dans le Sine Saloum nañ dem dans la région de Sédhiou. Hmm. dem visiter certes semble leader de la commune de Pal mais aussi euh, nek leader de nga commune de que il est un jeune influent dans la région de mm. Saint-Louis mm. xooli ko ak mbokam to inshallah, nous sommes prêts aussi pour les accompagner ci yëpp lu nga xam ne dans cette commune Nous rek du mun aussi toute la famille de Fatik, euh, Saint-Louis ñi nga xam cette ñu doon voilà Fall wax la ne gars 75, ngi wax moi parfois il 5 TV bu 75. en direct merci beaucoup Autant que vous êtes chef de voilà, merci à l'ensemble des équipes en régie Bambatra pour la réalisation. Bonne suite de nos programmes et bon après-midi à tous et à tous. demain, Inch'Allah, pour bien numéro de votre émission, le Midi Info.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 dina yok sen katan bolé ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito so exina pour fête bu monti doon te bax lool ci yahu gune ak mat lepp nak nek ci emballage yu civilisé